وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا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 sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi asalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi ñaan borom bi taala wa tabaarak taxawaay yi ñuy taxaw ngir sàkku ci jëmmam yàlla nanu ko nangul lépp loo xamante ni dal nañu ci ci mbiram doomu aadama yàlla nañu ko yàlla teggil defal ñu ko lu gën sunu yaakaar noo ngi julli tey sëlmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñëwaat ci madrasatu ramadan tey ñoo ngi jëm ci buntu bu yéeme bu doy waar muy fitnatul awlaad fitnatul awlaad mooy nattuy doom walla fitnay doom xam ngeen ni doom kenn ku nekk ci nit ñi bu dencee soxna ci góor ñi bëgg na ko su dee ci jigéen ñi bu amee borom kër bëgg na doom doom boobu nit ki di bëgg walla doom yooyu muy bëgg li ëpp su ko amee xolam dafay sedd ndax day jàpp ni am nag kuutu su dee jigéen day jàpp loolu su dee góor da koy jàpp ba tax na kii sëy bu amul doom loolu da koy jàppe naqs wàññeeku da koy jàppe moo tax góor gi bu sëyee ay at te amul doom bëgg-bëggam lenn rek lay doon muy am doom jigéen ji bu séyee moom it amul doom bëgg-bëggam lenn lay doon muy am doom doom boobu muy bëgg nag la ca ginnaaw ndax xam na ko déedéet am na lu ko ca war ndax mi ngi koy taxawee loolu ñu bari des nañ koo xam moo tax borom bi di wax ci suuratul anfaal ne waalamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna wa anna allaha indahu ajrun ne na ngeen xam ni alal bi ngeen di sàkku di ko ut di ko dajale nattu la waaye nee doom yi tamit nattu lañ te ñaar yooyu la nit gën a bëgg ci kaw suuf muy dellu ci ñett muy alal doom soxna te benn bu ci nekk nattu la walla nga ne alal doom boroom kër benn bu ci nekk nattu kese la kon sunu borom bi dee xamal ni alal ak njaboot nattu la kon ñu xool ñetteelu parti bi borom bi ne yaa ayuha allazina amanu inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum faxzaruhum borom bi na yéen ñi gëm yàlla ne lenn ci seeni jabar ak seeni doom noonu lañ ci yéen dinga am ay jabar ñu nekk noon ci yow walla nga am kenn ci soxna mu nekk noon ci yow walla nga am ay jabar kenn ki nekk noon ci yow te xam nga ni sa noon mooy ki teg teg jours ay fitna ci li ngay jàpp yow en tant que nit ñett yi yépp nag bu ci nekk responsabilité la ci kanamu yàlla alal responsabilité la ci kanamu yàlla yowmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn jaam buy séqi benn jéego yowmal qiyaam lu dul yàlla dina la laaj mbir yi di ñëw te bokk na ci ba mu lay laaj an maalihi min ay naktasaba wa fiima anfaqa yàlla dina la laaj yow doomu aadama bi yowmal qiyaam alal bi nga sonnee woon di ko ut di ko dajale moo xam am nga ko wala amuloo ko bëri na wala bëriwut waaye alal bi moom danañ la ko laaj ndax ci xéewal la bokk summa la tusalunna yawma idin anin naim te alal li tax mu danger niñ la koy laajee mooy foo ko jëlee foo ko dépensé niñ koy laaj fi nga ko jëlee ndax leew na dinañ la ko laaj waaye fi nga ko dugal ndax jaadu na bëri nañu góorgóorlu ba utee alal fu lew waaye dugal ko fu jaaduwul bari na bëri na ñoo xamante ne utee nañu alal fu lewul dugal ko fu jaaduwul wala ñu jëlwee ko fu lewul bugg koo dugal fu jaadu te yooyu yëpp benn munta nekk moo tax borom bi ne wa man xalla yati bi maa xalla yowmal qiyaama wa man yaxlul yati bi maa xalla képp ku njaxas walla ku sàcc li nga sàcc di nga ko indi yowmal qiyaama kon ci alal lay dellu ndekk kon alal fitna la nattu la waaye ci suñuy dund ak suñu ñàkk giseen ku ko amul rek dangay foog ni yàlla natt na la ku ko ñàkk dangay foog ni yàlla dalaa bañ moo tax borom bi ne wa amma man maa awus bi dimbal leen ma ci aaya bi <laughs> borom bi taala wa tabaarak mi ngi wax ne doomu aadama wa amma al insaanu ida mabtalaahu rabbu fa akramahu wa naama fa yaqulu rabbi akraman nee na doomu aadama bu ko yàlla joxee alal mu ne che macha allah yàlla teral na ma man sama famille famille bu barkeel lañ sama liggéeyu ndey la maa ko liggéey te fekk ne alal du liggéeyu ndey yàlla moo ne koy xéewal ndax jox na ko ñu bandi jox na ko ñu saay-saay ñi ëpp ci kaw suuf ñu saay-saay ah, borom alal lañ kon alal wërsëg la yàlla koy joxe nee am koo xam ne wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ki nga xam ne nag ndeysaan mi ngi ci àdduna di ut alal di liggéey te amul chaque jour dana noo man yàlla bugguma man yàlla daf ma tuutil li yi am waroon naa ko am pour pourquoi nangam di kebeto te loolu ngay kebetu ñàkk ko ndeke mooy sa jàmm yowmal qiyaam xanaa xamoo borom alal yi yowmal qiyaam ñoo ëpp fitna xoolal dërëm bu nekk bu ñëwoon jàkka ji ne ñëpp génn ñëpp génn ñu teg fi ñaari policier ne leen kenn ku nekk li nekk ci poosam na nga ko wëññi dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm ba mu jeex mu dugg suñu defee noonu am koo xam ni dafa yore fukki dërëm am ku yore deux cent am ku yore cinq cent am ku yore cinq mille am ku yore un million ak ñu yorewul dara kan ngeen yaakaar mooy njëkk a dugg ah wuy leen kuy njëkk a dugg ki yorul dara bu ñëwee dañ ko naan an sa alal ma man daaw ma tus ñu ne kon duggal mu dugg ki am fukki dërëm ak ki am cent franc kan mooy gën a yàgg ki am cent ki am cent franc ak ki am cinq cent kuy gën a yàgg ki am cinq cent ak ki am million kuy gën a yàgg moo tax borom miskin yi dinañ dugg àjjana ay at borom xaalis yi doog a ñëw mais fii ci àdduna moom dañoo foog ni borom xaalis yi ñoo liggéey nday kon boroom bi nee na alal nattu la beneen bi ci nattu yi soxna nattu la soxna yi nattu lañ waaye bu ko waxee bu ñu jàpp ni soxna yi rek ndax azwaaj la jëfandikoo day nekk góor day nekk jigéen kon soxna yi nattu lañ da ngay takk yore joxe dépense jéem li nga mën te doo ci am lu la neex loo ci mun muñal rek nga mën a dégg benn góor dafa may wax lu am solo nee na nee na sàll mu naa man dama toog di jàng di jàng di jàng sama jàngati jigéen ba caag ma ni non no ma ne ah, mu ne am koo xam ne su ngeen jotee ku ñëw ne la bu ko topp ku ñëw ne la bu ko topp <laughs> mu naa ah, kon wàññil joteeg moom ak lu mun munti am lu ngeen munti jëri ko aay bu ko topp kii jigéen la ah kii ni ween ni sëggee noonu la xel mi sëggee ah ak lu munti am lu munti am rek dañ lay wax bu ko topp mu ne bi ma jàngatee loolu ba xam ko kon nekkatuma fi di ko topp kon damay jàpp rek lii moo mun a nekk ma nangu ko ci natt yooyu ñi bëgg a baax la ko yàlla gën di nattoo ñoom la ko yàlla di nattoo ñi bëgg a baax ñoom la ko iblis di xeexee am na koo xamante ni këram day neex parce que faalewul dara benn jeune gement m'en boo xamante ni yoonam ci alal bu lew yoonam ci du dagan yoonam ci julli yoonam ci jaamu yàlla mook jabaram daanaka dañoo mel ni rek bëy sikket ak bëy bu jigéen ci àll rek ñoom sëy li ñu ko jàppee mooy lal bi bu ñu amee baax na bu ñu amul baax na ñoom doo dégg seen histoire moo tax ñu bëri ñu ñokk comprendre dañuy jàpp ne pourquoi pourquoi ibaadu yi wala ñu bëgg a jaamu yàlla seen kër di naqari histoire di bëri ci soxna yi lan moo tax saay-saay yi seen kër du am problème xam nga lu tax parce que iblis miy yàq kër yi soxlawul këru saay-saay da koo am ba pare kër goo xam ne borom du julli borom jaamul yàlla je m'en lay dund kooku ban problème mu jabar lay am du ko am waaye yow mi jóg bëgg sa jabar baax nga bëgg koo teg ci siraatal mustaqim bëgg ànd ak moom àjjana iblis nee na la keroog nga ma xañ jàmm keroog la mu nga ma xañ jàmm it bis bi ne muy indi fitna boobu muy ñaareelu fitna ñetteelu fitna bi di gën a garaaw mooy fitnay doom ndax dafa bëri fitnay doom lu ci bëri ci papa lay jóge ak yaay lu bëri ci fitnay doom ci papa lay jóge ak yaay doom day nayloo doom day dofloo waaye doom dafay tëxitloo bi nga amagul doom di liggéey saa bu weer dee boo ñëwee da nga jox paa bi enveloppe jox maire bi enveloppe dem sa yoon amul benn problème mais keroog bi ñu nee alxayri saa bu weer dee balaa ngaa jox paa bi enveloppe da ngay calculer xaalis bi nu mu toll. bon madame vraiment war naa ko xotti yére war naa ko jëndal dàllo war naa ko nangam nangam kon li nga doon jox yaay ak papa du wàññeeku su papa gàttee xel wala yaay dañuy jàpp léegi sama doom commencé na maa ñàkk a jox su si doom tegee du gën a métti. jamono bi nga amul doom je foo ngay dund jàmbaar nga waaye boo amee doom keroog ngay dooga nag xalaat nag ngay doog xalaat moo tax yonent bi nee na doom day taxa nay saa boo amee doom rek commencé ngaa saa boo amee doom commencé ngaa denc doom day ragal loo lu bëri li nga doon def buñ la waxoon bu ku la woo fii booy kaa ñu nag man ko ma attention man sama yoon je m'en mais bis boo amee doom balaa ngaa def dara di ko calculer ndax lan moo tax doom bi moo tax kon doom yàlla nee na nattu la doom daggitu xol la xéewal la buy bàyyi koo ci yàlla mooy taaral àdduna su ragalee yàlla dana la dimbali ci ay jafe-jafe soo ko tegee ci yoon wu baax waaye day noppal xol suñu ko yaree day seddal bët sunu ko yaree moo tax olof nee na doom bu baaxee doomu ñëpp la bu bonee doomi ndeyam la su baaxee ñëpp ko bokk waaye su bonee nga am fitna kañ la doom di bon mooy ba nga ñàkkee xam responsabilité bi rek la doom di bon kon bi nga amee doom da ngaa war a taxaw ci jubbanti ko teg ko ci siraatul mustaqim bokk na ci fitnay doom dana tax a texee di dana dugal nit ci ay fitna dana la teg responsabilité bu baree bari dana ragalloo dana tiitloo dana dofloo bu fekkee doom ji saay-saay la soo amee doom mu dem ba commencé toll fenn fi fu ñu nee àtt histoire rek moom la su ñu nee wuub sàccee moom la koñ bi ku ci tiit ñu ne doomu diw ndax léegi ko yaayam xelam dina dal ndax papaam xelam dina dal léegi lan lay mujje doon day mujj naan doom ji man xaw ma foo ma toppee su boo xun ma la xaw ma foo ma toppee yow yàlla na nga alku yàlla na nga dee yàlla na nga torox lan moo tax fekk ñaan yi ngay ñaan soo ko toppatoo woon démb tey doo àgg ci ñaan jamono bi mu nekkee xale nga war koo corriger soo bañee jubbanti bañ a dóor bañ mu mer yaay mujj a mer kon doom dañu koy jubbanti xam loo ko yàlla xam loo ko yonent bi sallallahu alayhi wa xam loo ko mbaax xam loo ko ragal yàlla moytuloo ko nag bànneexu bakkan seetal ko ñi muy àndal loolu il faut nga def ko waaye boo jëlee doom teg ko fii bu yeboo nga xam ni fitna ñëw na bëri na ci nit ñi ñoo xamante ni bu ñu xësee ba am doom kenn du laal kenn du wax kenn du jubbanti rawatina nag bu nekkee ci kër gi maam nekk fi soo amul fulla maamam moo koy yóbbu safara yaag baayam ak yaayam dangay ngay question ne lan moo tax nit ki am doom di ko yar di ko defar ba mu màgg ba takk jabar am doom mu nekk sa sët nga bañ sët bi ku ko jubbanti war ngaa xam loolu seytaane koy def doo dégg ñu naan diw yaru maam la maam lan moo tax du bëgg ko laal sëtam seytaane moo koy liggéey ci moom ñaari baat baal jàmbur bu leen ko kii bu leen ko nàngam nga foog ni maam baax ko jàpp fekk maam baax jàpp ko mbon a ko jàpp su ko baax jàppoon dana bàyyi xale bi ñu corriger ko jubbanti ko yar ko kon maam na bàyyi xel jàppale doomam ci sëtam bi ndax doom saa bu tàmbalee def lu bon fitna commencé naa ñëw su tàmbalee ànd ak xarit yu bon fitna commencé naa ñëw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seen doom su amee juróom-ñaari at na ngeen leen jàngal julli jàpp suñu demee ba am fukki at nag na ngeen leen dóor bu ñu bañee julli kon gis nga islaam mi ngi lay jox yoon boo xamante ni soo ci taxawee xale yi mën nañoo nekk ñu baax boo leen sàgganee yaroo leen ba ñu nekk mag ñoom ñooy wëlbatiku yar la yow pàppa duma la walladi qaala li walidayhi uffil lakuma ataidaani nii an uxraja am na koo xam ne wax ay waajuram waaye mer di waay xam paa bi dafa soof quoi mère bi dox na temps ba mu jeex bëgguñu tardel fii quoi nañu bàyyi doom bu àggee foofu doom su ñemee taxaw ak papa papam wax mu teg baat yaayam wax mu teg baat doom jooju ku yebu rekk daasal sa bët soccu di ko seetaan te xam ne dinga ko reetaan xaw ma olof dégg ngeen ko wala déet doom bu ñemee yaayam wax mu ñëw taxaw xool ko bët doom bu jigéen di ko tontu papam wax mu xool ko bët di ko tontu saa bu doom àggee foofu su fekkee noonam nga yow jël sa soccu soccu te xam ne dinga nga reetaan waaye doom bi baax day am kersa di tontu yaayam bu dee góor walla jigéen di tontu baayam bu dee góor walla jigéen doom boobu bu papaam ak yaayam di wax day foog ni yàllaam mooy wax ndax respect bu mu am ci moom kon doom boobu mooy mujj nekk doom buy defaral wayjur wa qada rabbuka allaa taabudu illa iyaa doom dañu koy yar mais kenn di ko dundal ñu bari dañuy dundal mais yaruñu kon xale fi mu nekkee xale lañ koy defaree mbokk boo fi yoroon garab bu ndaw bëgg garab bi jub baax soo ko jëmbatee noo koy def dangay samp bant bu bu wow ci wetam te jub takk ko ci bant bi mu màgg ànd ak bant bi su màggee ànd ak bant bi nan lay mel du day jub xocc ah noonu la ñuy yaree doom waaye bu fekkee da ngaa seetaan doom nga jël garab bu ndaw bi rek ji ko noonu di ko roose bañ koo jubbanti di roose da ngay roose nii lay gën di def rek di jóg ngay roose muy dem di dem di dem bu demee ba ci yàgg ndax garab bi deet na la neex dootul nekk garab buy am ker su dee day am meññ meññeent bi dootul baax day nekk garab boo xam ne bëy ak xar yi bu jóg jot ko bu jóg yàq kon ni ngay tegee bant pour garab bi jub noonu ngay tegee bant pour sa doom jub soo koy def nag tegal yii sa wet di ñëw bépp góor bu bëgg a yar doomam ak jabaram mooy jàppal ni soxna si dañu ko war a yar doom dañu ko war a yar mais bis boo jàppee ni doom ji yaayam waru koo laal kenn waru koo jubbanti pàppam yaa ngi tas kër gi bis bu yaayam jàppee ni pàppam waru koo laal fu mu turne ni kenn di ko jooyloo yaay commencé naa yàq kon kooku dañu ko war a yëkkati xale bi jubal ko defar ko sa doom boo ko jooyloowul dana la jooyloo kon fexeel ba waxam nga defar ko jëfam nga defar ko jikkoom nga defar ko te yooyu mu ngi delluwaat ci yow nan ngay comporté woo ci kër gi nan ngay mel ci kër gi yaag yaayam ana nan ngay doxaloo ndax bis boo demee ba doom ji am àndandoo yu bon fit na day tàmbalee ñëw jóg dafay tàmbalee jot benn jigéen ànd na ak doomam ak boroom këram xale boo xam ne ci dix ans lay toll xam nga lan moo nekkoon problème yaay ji xale bi day tux dafa bëgg ma ñaan ko mu bàyyi tux <laughs> loolu la ko yaay ji indee sam plat lu tegee toog ñoo ba pare mu ne ma oustaz ñun kii yee ñu jaaxal man ak maa ngi nii maak papaam kii de mi ngi nii demagul fenn bëgg a jël tux rek def ko métier wax nañ ba sonn man ne ko soxna si góor gi mu naa ma ne ko yéen da ngeen di yàq seen doom ba pare di dof dof lu ci kaw nit ñi soxna si ne ma ah ne ko kii amagul 10 ans demagul fenn mu commencé leen a të di tux kon li muy tekki mooy daawu leen ko wax dara bi muy nekk xale mu ne waaw wax dëgg yàlla nag duñ ko ndax papa aju commencé non non <laughs> kii sama papa laa ko tuddee quoi sama papa dafa baaxoon ma ne ko keroog nga ko rey bi nga ko tuddee sa papa ne sa papa daa baaxoon keroog nga ko rey te lor nga sa papa ndax tuddee nga sa papa ku bon ndax ëllëg du dem ba ci yàgg yow nga xool sa turandoo papa dootoo mën a wax dara mun ne ma ne ko sa papa boo ko tuddee doom wala koo sopp doom bi da nga koy yar mu yor sa jikkoy baay mais xale bu toll nii demagul fenn nga ni ñaan kii lan mooy ñaan kii du ñaan de yar moo ko yóbbanti yar. dem leen ngeen defar ko ku la wax ni da koy ñaanal mu jub dalay nax doom dangay ngay jubbanti doo ko bàyyi ci li ko neex soo ko jooyloowul mu jooyloo la saa bu demee ba nga sàgganee ko day mujj nekk diisaange sa kaw muy ximlun musqala bu demee ba nekk ximlun musqala mooy yenn bu diis ah su boobaa fit naa ngi ñëw kon war ngaa taxaw yow jullit bi loolu maa ngi koy dénk mbokk yu bari ñi ndaw tey am doom moo xam benn walla ñaar bu yeboo ñu teel a taxaw ci jubbanti njaboot gi ndax njaboot boo ko jubbantiwul fitnay àdduna ngay njëkk a am mu des fitnay àllaaxira fitnay àdduna nag mooy borom bi lan la wax wala taqul lahuma uffin wala bul wax sa yaay cam fit see bul jànni sa baay loolu la koy indi mooy doom ju ñu yar mais boo yarul foofu la jëm kon mbokk yi ñëw na ata ibnu yasaar nee na aaya bii nga xamante ni borom bi wax na ko yaa ayyuha allazina amanu inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum nee na sababu nuzul bi ci awfu ibnu malikin al asjai aw ibnu Malik al-Ashja'i yi kenn ci saxaaba yi dafa amoon ay doom waaye saa bu xare jotee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote ñépp jóg jël seen arme bëgg a dem saa bu ñëwee këram ba jël armam rek doom yi jooy jooy bu ñu jooyee mu ne leen nan la ñu ne ko papa yaa ngi dem ñun kañ nga ñuy bàyyeel su ko defee xolam tooy dootul mën a dem mu commencé toog day toog ba dootul dem xare borom bi wàcce ne inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum nee na lenn ci seen jabar ak seeni doom ay noon lañ kon mbokk yi doom dañu koy jubbanti danu koy yar danu koy jàngaloo diine dañu koy jàngaloo àdduna gaa yi nag dañuy wax ni doom boo ko jàngalee diine rek jàngal nga ko àdduna saa boo ko yaree ci diine mooy jàngal nga ko àdduna soo ko xañee diine mooy xañ nga ko àdduna kon góor ñi nañu xam ni doom yi du lu ñuy nabb nabbee kenn du jubbanti sët noonu bari na sët yu yàqu maam yi ñoo ciy responsable ndax boo téyee sëb sët ne kenn du ko laal kenn du ko def dara mooy ndof ñëw na saa bu demee ëllëg lu ko dal rek jàppal ni yow maam ji yow yaay responsable ci loolu te yow buggoo woon doom yi nga jur mel noonu comme buggoo woon doom yi nga jur mel ni sa sët bii kon waroo sàgganee sa sët bii mu mel nu neexul say doom ëllëg mu mel nu neexul say léeg-léeg nga léeg nga laal sët maam di jooy maam di naqarlu su boobaa maam danga koy jàppee dof rek lan moo tax nga di ko jàppee dof mooy dafa dépassé lan moo tax mu dépassé moom bi mu ciy toll man daf maa yar en tant que doomam dafa taxaw ci pour man ma yaru tey man sama doom ma bëgg a sàggan moom sama baay wala sama yaay di yore yaram ba di ma ko xañ du ma ko nangu damay taxaw carrément ne la papa ba nga bëggee ma baax da nga maa yar génnal ci sama doom même bu meree parce que boo ko seetaanee di sóor ay meram ci sa doom da nga ñàkk te bu jaaxlee lu muy mujj tëju di jooy rek lay mën kon bu ko nangu ci doom bu jigéen bu ko nangu ci doom bu góor bul soxor ba mu ëpp ci xale yi waaye bul baaxit ba mu jéggi dayo kon yàlla wax na dëgg ba mu ne innama amwaalukum wa awlaadukum fitna nee na alal ak doom ay fitna lañ fitna bu mujj bi nag ci doom mooy waqifuhum innahum mas'uluun yowmal qiyaam kenn ku nekk ci nit ñi doom yi nga am yàlla dina la laaj loo ci defoon loo ci defoon loo ci defoon ndax yaroon nga ko ndax jàngoon na alquran ndax jàngoon na diine ndax tegoon nga ko ci teggin loolu dañu koy xool su ngeen xoolee sunu maam yi nit ñu daan yare ak sunu baay yi tey ñun yaree wuñu noonu am na benn kii bu may faral di nettali toujours ndeysaan dama dem ci benn dëkk ci côté euh, dëkku séeréeru ndox yi ko mooy ñoomi ngi kay ñëwee ci benn dëkk ndeysaan waa kër gi saar la ñu sant mais bi ñu ñëwee taaj añ bi yàlla xam na ko keroog dama yéem xale yi seen bool lañ leen tegal mag ñi seen bool mais ma xool xale yi seen bool war na noo toll ci ay cinq six xale xale benn bu nekk day jël loxoom jàpp ci ndab li muy lekkee ba pare benn waay moo ñëw dindi ndawal teg ko ci loxo bi nii loxo bi téye bool bi mu teg ko ci nii xale bi di di tibb di lekk ma gis xale yépp def ko di lekk kenn yëngatuwul man li may lekk yépp maa ngi xool xale yi maa ngi xale yi dégguma seen kàddu benn gisuma xale bu yëngatu gisuma ko jooy ni yaa ah, yóbbu na jënd jox ma sama yàpp jox ma sama nàngam dégguma ko lekk man bi ma jógee ma toog di xool xale yi ba ci yàgg ma ni ma ni mbokk bi mais mais seen affaire bi yéem na ma de mu ne ma fii de kër gi ñi fi yaroo ñëpp dëpp ci sama baay nii lañu leen yare grand bi fa nekk di taawu kër gi mu woo ko mu ñëw mu ne ma ustaad li ko jaaxan mooy lii mu ne ma waaw sunu maam moo ñu daan yaree noonu da doon wax ni xale buy lekk dana na xool kanamam loxoom bañ a fekki ndab li mu ne ma na mooy li ñu teg fii man ko loolu moom jaaxal na ma mu ne ma lii day tax mu xam ni su yëngatoo lu wadd dootu ko jot kon daggal nañ ko ndawal tegal ko ko kon dana sàmm ni du yëngatu dana lekk normal loxoom dana dugg nànk mu tibb ndànk di xoolaale lii ndax lu ne putt wadd rek ci suuf la jëm borom da koy perte ma ni <laughs> lii de boo ko defoon Dakar ñoo nag yaa ngi jaamuloo xale yi yaa ngi leen di nangam nangam Dakar ngay tiim lekk bu ña caraf rek xale bi ne cëfit ndawal li yóbbu waaw wala mu ne cëfit su pomme bi yóbbu ngay toog di xool nooy def ak nooy def li seen daara nettali mun a dafa dem ci kër ndeysaan ñu tegal leen ginaar dañoo teg rek boole ko benn xal xale bi ne kërëb jël kii góor gi xool xool xool xool xool te bëgg na ci ginaar gi xamut ni muy def nee na mu kili kaalaam muur ko ci xale bi rek màtt ko ci kaala bi xale bi ne way sama daa mu dindi xale bi naan sama yàpp sama yàpp góor gi na waaye yow lan la gars yi yuuxoo lan la lan la mu naan sama yàpp yow yaa xamadi waay loolu paa bi continué lekk yàpp xoolal gis ko ni mu ni mu ko jaxal parce que xam na ne bu ko teguloon kaala màtt ko day feeñ mu teg ko kaala màtt ko ba xale bi yuuxoo mu këf yàpp bi kon loolu lépp day wane ni xale dañu koy jubbanti da nga koy yóbbu mu jàngi su jàng jotee mu jàng su may jotee nga may ko su sang jotee nga sang ko su yar jotee nga yar ko lii nag ñu bàyyi ko xel xam nga ñàkk yar doom fitna bu ñu indi laaj leen ñi nekk Europe tey ñi ne Europe seen doom lañuy ñuy jaamu xam nga Europe kenn dafay dóor xale xale bu ndaw amagul sept ans day xam numéro boo xam numéro vert bu muy woote bu police ñëwee sa doom moom doo ko laal moo tax ndax da nga dem ba Europe nga am ko fa waa Europe ëpp la ci doole kon doo ko laal kon nañu xam ni doom yi nattu la yal na yàlla aar ñu aar ñëpp incha allah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu وكذلك أوحينا إليك روحا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور